الحاج مالك يا رام سيد الحاج مالك هو باب الكرسي جل دولة هو سن باب الكرسي جل دولة واو واو سن باب الكرسي جل دولة o sëñ Babacar Si jëlloo ndam la ku ma soppal sëñ Babacar loxoy ca kaw ku ma soppal sëñ Babacar loxoy ca kaw ku sopp sëriñ Babacar loxoy ca kaw ku sopp sëriñ Babacar jógol taxaw كسوك سرين بابا كد جوغل تخو كسوك سرين بابا كد جوغل تخو مام الحاج منصور بورم بالخومي مام الحاج منصور بورم بالخومي محمد منصور الحاج منصور baayu sëñ Mbay Mansour ee Mamadu Mansour baayu sëñ Mbay Mansour loxo yi ca kaw loxo ci Mamadu alaaj Mansour ay sëñ bay Mansour maamu Abdul Aziz Dabakh deesu ko jam alxaaji Abib booram tampoo ba Jamil Faas haa Jamil Faas Sidi Jamil سوى سيد يوم الفاس واج منصور مبيسي كوكو مصفيقك sëriñ Cheikh Tidiane si kooku gore na ba dem sëñ Abdul Aziz la mag ñi wóolu sëriñ Maodo si borom xam-xam dëkk yar bi sëriñ Maodo si sëñ mbay sëy abudoo góore ñépp ko wax sëñ mbay se Mansour daalal na xel yi fii fi jadwaawoo jadwaawoo mbay الفا ويسم الثلاث وتسليم الإله على خير البريات حقا ما تحيا وألا هدى للنور sa tour ak sa sant di leen ziyaare di ndokkeel di ñaan yàlla bés bii eh, li ci boroom di ut yàlla na ko ko yàlla jotal rek jullit yépp parce que lu mel nii dafa jafe jafe bi nag mooy xale bu tollee ci digg ndawam waroon am benn yoon bu mu jël jël beneen bi nga xam ne mooy bi ci jullit dañ ko ñaan war dañ ko war a ñaanal yàlla te cheikh yoon bii mu jël nii mooy bu baax bi tey tant bu toll nii ak nit mbooloo mi fi daje mënoon na nekkee neneen nu dul lii ci yonent bi kon bu jëlee yoon bii liñ ko war a def mooy ñaanal ko yàlla e, moom moo xam li mu bugg ba jël yoon bi yàlla na ko ko yàlla defal e, ndaw la nag dafa nekk ci bunt yal na ko yàlla ubbil bunt bi ba fa mu bëgg a yegg mu yegg fa man sama xol dafa sedd dama mënuloo wax tey parce que problème bi mooy euh, lii mu ma jox nii ah, ci nit ku bu néew doole bu mel nii man mu jël ma jox ma bés bu mel nii euh, ne ma jox ma parrain bi wax dëgg yàlla desalatuma dara maa ngi koy ñaanal yàlla moom moo xam li tax mu def ko yal na ko yàlla fay ñu andak ak sunu imam nak bu Sogas muy Ablaye Sey Sogas yépp li jóge ci chef du personnel bi direction bi agent ñépp amul kenn ku nyep ñépp ngi ni ci gannaaw and ak sama walu suma fami man li ki moy suma mak bi ma mak mak nyobok ño bok ndek bay mu jital ñu ñu ñew and fi ñun ñëpp wa fatiga ak ñépp ñu ngi tok ak sama xarit ak ñima am yépp ñom nyep ñu ngi ci baas bi fa fekk sera sax dañoo waccagul mais ñom ñep ñu may woné ma ñu ngi ci yoon wi parce que cheikh mo jar lolu cheikh mo am taxaw bu mu taxaw ci bir sogas bo xamné won ko ak nit ñi and ak ñom tay li su fekkon dafa nekkon besu dimanche bo xamné ne du yi liggéey dimanche bu soobee yalla ngeen gis lu kenn mosul gis mais nak ni la ko yalla dogalé, suma wax dal fi la ci gàttale parce que suñu andé ku melni conférencier bi Iran mu tok wax deug yalla sun wax mën na baña bari parce que dafa am luñu taxajuk luñu taxajuk moy am na lu ñu war a jàngal lu ñu xamul mu jàngal ñu ko kon bu ñu ñëwee moom mu too amatuñu kàddu nañ ko bàyyi la mu bugg a wax ko ma jël kàddu gi jox imam bi suñ Ablaye Seye bi ñu àndal Ablaye Fall lu mu ci wax loolu la ngeen baal ma ak jërë ngeen jëf aoudu wa sallallahu ala ashrafi almursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam wax dëgg yàlla wax ji du gudd parce que li ci am solo yëpp ji bi wax na ko kon ñu ngi leen di indil nuyoo président directeur général bu Sogas parce que fu chef de personnel ñëwee imaamu jumaa ji ñëw euh, comptable yi ñëw yaakaar naa ni kenn desul te loolu li ko waral mooy dëgg la cheikh jox na jibi cër bu rëy waaye jibi tamit mérité lañ ko jox ndax nit ku nekk la ko ñor rek nga koy jox mu saf ko mu jaral ko mu dajalee li mu am yëpp indil la ko te mooy grand frère am bii ku baax di Moustapha Dieng tuuti ma mus ma tuuti ma ni Moustapha Fall sax di Moustapha Dieng ah baax lool parce que xale bu sete bu loo xam sete mu mën a bokk ak mag te bu mel woon ni mu war a mel kon du mën a dajale lii mu dajale kon jibi yow tamit ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal sa fan lii yàlla na seen njiglaay yéen ñëpp yàlla yàlla yàlla yàggal kóllëre gi Iran ñu ngi lay ziar bu baax di la xamal ni yaa ngi ci sa kanami soppe tey wax ju du gudd jarul sax muy gudd parce que boo guddalee wax da ngay dem ba dootoo saf nit ñi sax parce que li ni tax a jóg mooy Iran Ndao nañu toog déglu ko yàlla na ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon Cheikh nga ñëw ah li li sa soppé jox ñu jox la ko yow tamit لم يسر إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صادق الوعد والوحيد اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته من قريب وبعيد السلام عليكم بقي جنا وبنو لنيو لين بالأخ دين بالأخ ليان سبحانه وتعالى لي جبوغي يلنكو في يالا سخال فاو ndax li kat wax deug yalla mom la diine islam tamu àndandoo gi ngeen àndandoo ba taxawal lii e alxuraan ne ne wala si naj tajaabu li rabbihim wa aqaamu salaata wa amrum soora baynahum loolu la alxuraan wax jëfe ngeen ko yàlla na ko yàlla nangu sunu yonent Moustapha sallallahu alayhi wa sallam lan la wax axlisoo ibaadallaahi àndandoo gi ngeen àndoo taxawal lii bul axlisoo ibaadallaahi lan mooy axlisoo ibaadallaahi dafa ne axlisoo bu fekk yang ko dégg ne njàpp mu sel aw yonu jàkk ja rek boba boba desna na axlisoo wa aqimu wa aqimu xamsakum wa addoo sakata amwalikum tayyibatan bi anfusikum wa sumu sahrukum wa hajju bayti rabbikum tadkhulu jannata rabbikum li la mustafa wax alquran wax lan wa jahadoo bi amwaalikum wa anfusikum fi sabilillahi ulaaikum sadiquna ña toogoon ak Moustapha sunu jamono bii léegi lan la alxuraan waxaat wa jahadoo bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi saalikum xayrun lakum in kuntum taalamuuna lu mu ci teg yaxfir lakum sunubakum wa yudxilukum jannatin tajrii min tahtiha wa masaakin tayyibatin fi jannatin adnin zaalika fawzul aziim te loolu la ñu soxla te it subhaanahu wa taala dafa wax ne laa tadxulul jannata xataa tuumino walan tuumino xataa taxaaboo moytu ngeen ko moo tax ngeen taxawal lii ngeen taxawal yal na ko yàlla saxal bi jaay seydi wara sallallahu alayhi wa lii lislaam kontaan na ci nit ñu baax ñëpp d'accord nañ ci Iran yal yàlla tax yàggal sa taxawaay te it ko mbokk yi nga xam ne dañoo àndoo taxawal lii yal yàlla xëcc fan yi ñi nga xamee ñu leen ci jàppale itam ñëpp yal na yàlla guddal fan yi far bàkkaar yi ak yi Mansour doon wax léegi yal na ko yàlla méngoo ndax muy xànniyu comme muy xànniyu nag yan ton ay jaamam rek lañu nan ko yàlla feyal bi yaay seydi wala waaye nag dafa ni nag wama ataakumu rasulu fa xusuuhu yal na yàlla euh, xippal xol yi ba ñu mën a teg sunu tànk du nu ay yonent d'accord waaye nag nu mën a jaar ci yoon wa ba bu geesoo seeni bu nu bu nu gàttandu du sonn du nu sonn bi jaay seeni war a solee nu bokk def fatiha salaatu ala nabi booy am ndigalam teg ci ayatul kursi yi yàlla boole nu dëkk beeg njaboot geeg alal jeeg lépp sàmm fallax fallaxeeg naasi xulolaawu ahat ñu boole ko ci ñi jiitu ji ñëpp yal na yàlla boole yërëm góor ak jigéen fallaxe ak naasi yàlla saafara jàngoro yi wattunu ak sunuy am am ak sunuy njaboot bismillah auzu billahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم خير المخدوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره مقدار الحسيم بسم الله لا إله إلا هو لا يقول تقصير وأنا مؤمن من الذي يطمئن الى بسنة يعلم ما بين ايديهم بما خلفهم لا يتم بسنة ميمي الا بما شاء الا بما شاء وسنه كرسي وسنه ولا تؤمن ثم لا كره في دين خطة بان رسل من الخير ويؤمن بالله فقد استمسك لن في سامن لها ولو سميع العليم بسم الله مريم وبحقي قل هو الله احد الله استمر لم يلد ولم يولد وببركته قنص بري فلخ مثل ما خلقكم وبالشر قنص بري الناس ملك الناس اله الناس من شرور خناسي شيء يوصف في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل سيدنا محمد الفاتح ما أخلق ما سبق نسق ما كما نسألك اللهم حسن خاتمة ونمر إلى بقاء وطول عمر ربي في تقاك مستقلين بك عن سواك وشكرا تكون كنواس عند ممات خالق الإنسان والموت في الإسلام واليقين يوم الجزاء بالهود ساربين دريهنا نوير وجود بلنسي منك لدى وهتسنا في رمسي والسق الميسان يوم الدين والتهتنا الكتاب باليمين جواسنا على صراط فشالي طرفة عين عند ديخ الهيل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi delloo nuyu yépp ci sunu bàyyi bi ubbi jotaay bi ak ñaan yal na ko yàgg fekkee yal na ko wér di lal yal na ko kàttanu sunu borom di gunge di ci teg borom bés bi muy jëbra iilu ak mboolem ñi mu àndal ñépp nga al imaam abdallah ak usra bi yépp la ziyaar bége kontaan ci ñoom imam ali ñi ñi doon nettali li mag ñi bind ci arab ñu wax ñu ko mu jëm ci yonent bi yàlla yàlla dolli xéewal ak mucc ci muhammad loolu rek la sallallahu alayhi wa di firi du bàkk du kañ ñaan la yeneen ci bi bis bu xëyee ak bu gontee dana jot ay milliards yi ñaan moom la ñu yaakaar kon ku dul yeneen ci bi fu mu i moo wax ni ki nay du ki bañ a joxe xaalis déedéet mooy ki dégg ñu tudduma ti ñaanaluma koo ko nay moo tax buñ ne muhammad soo déggul arab nga ne yal na ko yàlla dolli xéewal dolli ko musal soo déggee arab nga ne sallallahu alayhi wa sallam loolu la du du bàkk sëriñ gay du kañ du bàkk ñun nag dañuy wax ba dee ci lu leeral defe nañ ne ne sallallahu alayhi wa rek mooy aminatoo ko jural abdallah lu woy ñaan la ñaata junni néew la ñuy julli ci àdduna bi ci muhammad la njëkk a jullee bu ñu tëral njëkk a muhammad doo ko jullee néew bi alhamdulillahi wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi allahumma igfir lahu aw igfir laha warhamhu warhamha néew yëpp ci adduna bi bu ñu ci tëra rek Muhammad la imam di njëkk ñaanal donc ñaanal néew bi mu am assurance waataan léegi-léeg nga dem ci daje dégg ko naan ah jarul ñaanal texe na ma ne xanaa kon yenent bi texewul te ñu di ko ñaanal Sëriñ Babacar nee na ca weesul jarta ñaanal nee fa la cat yem fa la yaakaar ju tas yem ñaan ñépp ko soxla bu dee nuyoo nag bu la neexee baat bi gën a wér mooy maa ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal njëriñ di leen ñaanal yërmandi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi yàlla na ngeen am jàmm yàlla leen yàlla yërëm te jox leen lu ngeen jëriñoo lii rek la kon su la neexee ne maa ngi leen di ñaanal ñaari baat yi rek a fi jib kon imaam ali ñu leen di sant cheikh alxaaj abdul aziz da daan wax ne nettali waxi jàmbur jarul guddal kaala ba ci xotti mbubb mu bees waxtu wi démb maa ngi waa daaru daara jolof te dama fa gis kuy funki rek te kat daa nar a nettali nar a nettali loo ciy tiitaru muy ñam-ñam mi ni fas wuy bëgg a daw kursu ma ne ko jaru ko seetal Cheikh Al Hadj ku liggéey xilaas moko ko waye neena du waxam Maodo nee na li ci khilas yeb waxuma ko dama pirat lo wax fa bi'tu ya rabbana ha ha ha chekhna na Maodo nee ku pirat dañ la wara alaman dama pirat ndax li ci khilas yeb xam xam-xami jambour la jël dajale ko ci amande biñ ma war a alamaan nag maa ngi ñaan yàlla mu uutuma ci fayal ma ko ak ni xilaas bëree njëriñ nga wax lépp ñu ne ëskay nga ne du man gayal ku xam wax day moytu wax wax responsabilité li tëj nañ ci nit kaso waaye may nañ ci nit kër jox ko ci oto fii am na ko fi waxoon ci jamono ne président dafa jël passeport diplomatique yi xam nga jox ko góor jigéen ñi daa rek dem rëbës te nguur si ko ko waxloo kat kii la moom ba daal di tëju ne nem nem nem maaral la lay waxloo ba nga dugg ci muusiba lenn rek lay participer bu dóor safee mu yuuxul la mën a wax mag ñi musuñ ko ñeme Serigne Touba nettali na ñaari woy ñaari bayt waaye soo demee ci téere ba daf ne ni ko waxkat ba waxee muy zur man tuhib wa in shattat bika daaru wa من دونه سهل وأوعار لا يمنع أنك بعد من زيارته إن المحب لمن يهواه زوار ولا ني واخ بي بري نجرين سيغ توبا ني دو سما واخ داما كو اب داما كو اب دافني ني جبرائيل واخ تي شيخ دافني نيت بولا سوبي war na laa jaral nga jóg seeti ko ñu ne Serigne Touba bu dee fa mu ne daa sori mu ne bu cofeel ga dëggoo doo ko yëg ñu ne Serigne Touba bu dee yoon wa daa naqari mu ne bu cofeel ga dëggoo doo ko yëg ñu ne Serigne Touba bu fekkee yoon wa daa bëri suuf mu ne bu cofeel gi dëggoo doo ko yëg xaatim daal ne na demal boo dëggoo ndax innal muhibba liman yahwaahu zawwaaroo koo bëgg mu war laa jaral jox te sëñ baaba kër si da daan wax ne koo xeebal ñett bu ngeen jotee nee ko baal ma bul sori yaa tooñ koo xeebal sëriñam ah yow si ne fi ak mbàkk ngay gëm diw mii diw la yàlla def ci xolam sëriñ Issa Dieng newu Maam Mor Mbay Jaxate maam Mor Mbaye Cissé néew maam Sakhir Lo néew maam Cheikh Ibrahima Fall néew Serigne Alioune Guèye néew Serigne Moussa Niang néew Serigne Mamma Lo néew Serigne Cheikh Fall néew Alaaji Ibrahima Xorji Siwal néew fi Alaaji Mor Njama ca Tawa néew fi góor gu buubu ndaw ca Kàcca Mor Xujje ci mbir kilaan kenn sant gu ci si kenn ci sant si mooy Mor Xujje si te ñépp am nañ ay xalifa kii taalibe Cheikh Ibrahima Fall kii te Fall sant ci Mbàkke nga fa yàllay séddali sëriñ Babacar nee na koo xeebal sëriñam yaa ko tooñ nee na nit ku ko xeebal bésam yaa ko tooñ cheikh bés bii rek la mu tuddee ko jëbra il mu yebal délégation ne bëggoon naa ñëw waaye dama amul jot yàlla ne ko moomoo tur wi parce warulaa gën a gore mu ngi bokk ci ahlu bayti rasul mënoon ko tuddee cheikh bu muhammad ndax maamama te mooy xalifa bi te kon mu ñëw surafaaw yi ci dakaar barina nañu mu bàyyi ñépp ne Jibril laa koy tuddee tii muhammad boo yebalee délégation dangaa moomul tur wi kenn du la meree ndanga ko moomul sëñ Babacar ne nit kenn du ko xeebal bisam nee na nit it kenn du ko xeebal soxlaam imaam abdullah daal dama laa soxla woon dama doon tuur ndox bi may tuur ndox muy tës xaw ma takk na maam takku ma nga ne ko waaye doxal na le man damaa yàkkamti yu ñàkk fayda yooyu mais imaam ni nga ko xamee noonu laa ko réeree ni nga ko xamee ba xeeb ko noonu laa ko réeree ba naw ko sëñ Babacar nee na taxawal may ko aajo leeralal ko mu leer nañ nga bàyyi ko mu dem ñett yi kenn du ko xeebal nit soxlaam sëriñam ak bésam lu am solo la nag moo tax yeneen bi alayhi salaatu wassalaam imam wax na ko xam nga Sénégal lu nu dal problème yi am ñuy jël xale yi reet ñàkk gëm yàlla ak ñàkk waaye Serigne Cheikh nee na ragal yàlla sakkanul jege yàlla ko gën a sakkan imaam gay soore yi nit danga mës a yilif ne la wóor ne soore yi nit booy yilifee néew bee lay gunge foo toog sa xel ne ci ki nga rey fooy amee jàmm est nguur jar na ko ñun ñi toog ñépp ku ne xam nga ñaata mbubb nga ma sa ràppal kenn xamu ko te bu ci ne bees tàq la woon bi sa doom taqee uut si la danga koo bëmax bañ mu niinal ko nga mujj di ko fompee dàll fa la lépp di mujj anaa ko suma waa kër yi dama ne ne dañuy dañuy reer ñu ndogoo pare di waxtaan may leen xool leen ni ma ko bokkee yéen ti bu ma koy génn ci wanag bi bëgguma ko ma fa fekk ti bëgguma faa yàgg bëgguma ko ma fa bëgguma faa te nii ñu ko bokkee li muy xeeñ ni mu neexee kenn ku ne dagg di sex ti su ma koy génnee li muy xasaw ni mu naqaree ti ni may bëgg a teqale ko moom ci ngay xamee ne looy lekk na lew ndax ci sobe lay mujj loo sol na lew ci ràpp lay mujj kattan bi la yàlla jox jaamu ko ci fooy mujj màgget rek imaam ma ngi nii ñu jàppoo ko léegi dugal ti du doonaat waxambaane jamais gën a màgget rek gën a màgget rek mais nekkaat xale mënatul a nekk xanaa naax ba ñu naan maam yëfi xale lay def rek benn feebar nag lañ am Cheikh Al Hadj Mansour ko wax benn feebar Serigne Babacar feelu ko nga jël wax yi teg fële indi alxuraan dóor ci seen kaw fa waylun lil xaasiyati qulubuhum Sénégal gàllankoor yépp mooy xol yu bon yi tuuru ci réew mi demal ci réseaux sociaux yi demal ci facebook bi demal ci internet bi demal ci journaux yi kenn ku ne yaa ngi jonkan pour toroxal goru weer ko moo tax Youssou Ndour kontaan naa ci moom trop euh, ban jour laa dem nga paru bu ma juumul mardi la su ma juumee mën naa doon mercredi mercredi xëy na ma dem ngapparu ci yoon bi ñu téléphoné ma am lu ñu bëggoon a wax enregistré ko ba pare mu jëm ci Bougane te buñ ko tegee àddina tukki te dara baaxu ci ñu sifflé ma ko ma fexe ba Youssou Ndour jot ca loola Youssou moo sol dàllam téléphoné ña yor loola ne leen bu ko fi kenn teg bu mu jàll loolu rafetul yii la réew mi war di wut di ko dox mooy luy defar mënoon na ni bugaan sama wujji la manoon na ne li muy liggéey laay liggéey manoon na ne naa fexe ñu toroxal ko ma dëgg ci toroxam man dong ma ne fi mais dafa sol dàllam dox ko ti bugaan yëgu ko bugaan na nga ci biti réew te yëgul ne yuusu doxal na ko lii man dong maa ko yëg man dong te bu doon fen duma ko wax ci kanam ñetti këf yi ndax bala ñoo tëdd ngeen gis ko ci net Sénégal xool yi moo tuuru ci réew mi seetal parti politique yi xoolal wax yu ñaaw yi xoolal xasante yi xoolal xëccoo bi xoolal ñiiroo bi dem ba yegg ci tëri liir di ren yi ban Sénégal lañu ne xanaa du bu xaadimu rasul xanaa du bu Cheikh Alhaaji Malick xanaa du bu Cheikh Omarul Fouti Tall xanaa du bu maam Abdoulaye Niass xanaa du bu maam Amari Ndaak Seck xanaa du bu xanaa du bu xanaa du fuñ jëm xol nag yàlla nee na bu yàqoo rek réew ma àll ko fa waylun lil xaasiyati xuluubuhum moo ñu gaañ par parloo rek xasante rek jibi daal doon na lii seeraas Iran topp ci kawam ku ma nelaw jibi naa di fi dafi pexe bañ wàcc ko ma toog palaasam lu rey mbuum na des ca su ma fexee ba jibi jóg sooye boobu ma toog naa taxaw damay puus kama tëddiinu du daan nañ xol yi muur loo wërsëg wi nit a ngi lekk kaani ko ba mu wexti saful kaani ndax xol bu bon di naan kafe ñu suukar ko saful ndax xol bu bon di lekk ceeb ñu sotti ci aromasi yi ci Sénégal yi yëpp saful ndax xol bu bon taal sa climatiseur ñépp liw nga ñàkk ndax xol bu bon fa waylun lil qaasiyati quluubuhum dara loolu suñu feebar ñun senegal xol yi rek tariixa yaa ngi ñiir ñiiroo sëriñ saa ngi xëccoo politiciens yaa ngi xëccoo jàkka yaa ngi xëccoo daayira yaa ngi xëccoo association yaa ngi xëccoo ñépp ngi xëccoo ci li ñuy xëccoo moomuñu ko yàllaa ko moom ñéppay dee ba ko fi walillahi miiraasu samaawaati wala ard nee kenn du donn may donn dinaa leen rey yéen ñépp ñu suuli leen man dong ma des bi ne li mën nil mulkul yow ma tey kan mooy buur ana Macky ana Yaya Jammeh ana buur sàngam ana buur sàngam ana buur sàngam yàllay laaj boppam boppam tontu ko ne ko rey nga ñépp mu ne kon ko fi des mu ne ko yow mu ne ko may buur may bummi tey hôtel yaa nga nële banque yaa nga nële alal jàng fa jógee tabax yaa ngi taxaw lépp ngi ne jungu ñi ci dëkkoon jël naa leen lii rek liñ doon xëccoo ñu ñëw ma àtte leen nag te rafetal xol yi ngañ ngañ pour lan koo gis mu ngi xiiru ku ne yor nga teraange mais mënoo koo terloo ndax xol bu bon te Cheikhul Xadim radiyallahu anhu da daan wax ne jabet jabet jabet bu suukar mën nañ nee na insomnie ñàkki nelaw am na lu ko mën a faj booy naan garab nelaw waaye nee na insomnie xol bu bon dara du ko faj dee rek Sëriñ Bàmba bu xolam rafetuloon dana songu tubaab yi am ci ndam lii mais bu sa yéene rafetee seeraas yépp buñ la xeexee nga mujj toog seen kaw yaa ma'shara al jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaari samawati wal ard fanfudu seetal nga jël sa doom bu jigéen jox ma ko ma jox ko jinne ji ñu defal la ko ay milliards baa nga joxe sa jabaar baa nga joxe sa baay baa nga joxe sa ndey ah waaw def naa ko ti kenn du ko wax dara ja da cay yëg te ñu ngi ne mugg ci réew mi bëgg kaat kaat luy kaat kaat su ko yàlla tuddee danga ko war yàlla nee na wama umiru illa li yabudullah muxlisina lahu din xunafaa xunafaa képp ku ma gëm man yàlla lang may defal bu mu rax su raxee soxlawu ko sell rek leneen loo ca boole soxlawuma nee na itam lépp looy def ci du dëgg bëgguma ko soo yi ci sellal ak dëggu nag waa ki moo salaata ñëw nga julli nag laa diina li man laa salaata lawu yenent bi dañ ko laaj ni ko waaw ndax nit ku dul julli mën nañ accepter diine mu ne déedéet parce que julli mooy wéral diine mooy tax soo génnee asaka ñu nangu ko soo wooree ñu nangu ko soo saraxee ñu nangu ko soo euh, soo ajee makka ñu nangu ko julli rek a ko man sooy def yépp ti julli kenn du la ko nangul Mansour nay dem makk na tabax ay jumaa na tabax ay jàkk na tabax ay daara na togg ay ndogu di jox nit ñi ñuy lekk mu dem na makk mu ngi woor weeru koor mu ngi génn asaka mu ngi saraxe mu ngi toppatoo papaam ak yaayam waaye du julli yàlla ne ko ak wu ma maa moom sama alal bu manqué a salaatu du ko jël waaw ki togg ci xoromu des na ko lekk julli mooy xoromu jaamu yàlla julli mooy xoromu jaamu yàlla weer wi du weeru muhammad rajab du ci la ñuy dugg ci lañ jox yonent bi julli sëñ Bàmba wax na ko gisoo gars yi naan kasfu rajab du kasfu kasfu rajab kasfu mooy lu ñu muri këzzu la kaaf ak raagu ñu tomb muy këzzu kaaf ñaar fukk la raa juróom-ñaar la bu ñu tomb muy guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar ci la yonent bi jëli woon julli julleeg sëriñ fàllu ñoo maase sëriñ fàllu këzzu julli këzzu waxuma lu neex nit ah lu ma jàng rek lay wax man lu neex yàlla ma tax a jóg këzzu gaa yi naan kasfu rajab kasfu kasfu mooy lu ñu muri lu ñu muri ko comme gis nga escalier bi niñ ko muuree moom muuri ko ngeen gis lii loolooy kasfu su dee kësu nag lim la lim lim kaaf vingt raagu am tomb sept la muy vingt sept guddig vingt sept la yonent bi dem ci boromam déglul muhammad makumba déglul muhammad dafa war waruwaay wu gaaw bañ koy askanelee melax mooy albarqu di buraax mu togg góor gu ñuy wax yàlla ne ci pale bu ñuy tudd arash Moustapha jàkkaarloog sunu borom mu jox ko julli na bi wàcc aéroport xëy di voyager war mbaam yow boo jógoon màkk ñu teeru la ak saret ki la teeru nga ba ko da nga naan jibi man jibi xamoon naa sama noonu la man mas naa koo xam même gis naa ni mu doon doxee seeraas yëpp dafa ma contrôle waaye xoolal Muhammad waruwaay wu kenn kenn mësul war ku dul Ibrahim moom lay yéegee ba sidratul muntahaam ñu arrêté waruwaay wàcc ascenseur bu tudd raf-raf moo gën a gaaw xifa xipp booy teg di yegg danaa leen conseil leen nag moytu leen engagé ascenseur wuurul parce que mën nga bés mu ne kàcc ñu ne la nuus ni ci biir dabaj xuloo kenn du jege ka ngay xulool ascenseur kenn du sësu buntu ba wóorul sëñ gay maa la ko wax wóorul am na dof yoo xam ne dañ naan nii bés bouton bi jël élan pour dugg ñu jël élan pour dugal la foofu buñ la fay buñ la fay suuj ku fay ne xuloo itam doo joxe sa xar kanam gi da ngay dànd buñ tëbee dóor la nooy def am na ñoo xam ne duñ demee xel xol la ñuy demee kuy demee xol ci jël ngay dëkk lu mët di bàyyi xel la nag seetal yii yëpp Mansour def na ko waaye laa laa yusalli yàlla ne ko merci soxlawuma yénent bi war ci buraax malaaka yi escorté ko cortège bu benn président mosul am waruwaay bu benn président mosul a war mu ab taalibe war ko yëg ci asamaani juróom-ñaar iblis woo njabootam yépp ne leen góor gi yëg ci kaw am na lu kenn mës sa am defal nañ ko lu mës sa defal kenn te liñ ko jox kuñ ko jox boo wàccee danga nga beew nañ ko xaar bu alkoo ñu alak njabootam ñu defee ni bu Moustapha wàccee aéroport day aj mbagga mu xëy di voyagé war mbaam fële jikko yam di war mbaam maa ngeeg photo bu Cheikh Alhaaji Malick war mbaam góor gi ëmmal loo téye ngalaat gi Maodo ñu laaj ko mu ne yenent bi amoon na mbaam mu tudd yaafóor ti moom laa sopp di ko roy moo tax may war mbaam ni moom wa raakiban al ximaar yenent bi da daan war mbaam aidi sil aw jaay wa saxami su yégee ni ma kumba feebar na mu dem seeti ko léegi da ngay am sa sëriñ feebar du fa jaar nga feebarle du fa jaar xanaa nga yor xaalis bu boobaa nag indi woo ko xaalis bee ko indi pour buy dem nga yeewi koo tax xoolu pas-pasu kese jaralul jamono ji yenn sëriñ yi jóg pas-pasu kese kese kese maa la bëgg maa bëgg yàlla rek ànd ak yow mukk moom kay na malet bi tëdd su ma kumba seet si Iran buy dem un million deux million jib mu ñaanal ma ñaan bay ñaq di siit bay lox te gisoo fi sedd buy lox loo yàlla ma ne su ko nax te Ahmadou Bamba dafa waxoon wax bu neex waxoon naa leen ko daaw nee na walaa yaxurraka maqaalu naasi haada al fata min ak yisil ak yaa ma di daal du moromu gaay ñim bokkal maam Tidiane ñëpp moo leen raw moo leen gën a sell moo leen ëpp xam-xam bu ko dañoo bëgg a gaañ mëdi dañoo bëgg mu doxee ko yàqu parce que ku ñu jay nga jayeexu ku jayeexu nelaw ku nelaw ñu reer bàyyi la sëriñ Touba nee yawa du dëgg kenn rekk moom yawa qul huwa allaahu ah ahad allaahu lam walam walam lahu moom rekk la nee na aareen bi benn mbërë fi ne mooy man kenn ñemewu la bàkku sama kanam kenn sañu ko nañu defar xol yi yaay yonent yàlla Muusaa uuf liiram di jooy ñu ne ko looy jooy mu ni mu ni Ummu Kalsum sëru Muusaa man de bu Firawna yemee ci sama doom ji fu ma jëm am problème sérieux Cheikh am problème fi muy wax rek garde yi dugg ci police yi Cheikh Cheikh Diop Cheikh nag am na secret bu ma dégg ñoom ma di di ko wax naan ummu Moussa ummu Moussa du turu yaayi Moussa sirru la soo amee xaatim bi walla nga am tur bi mën nga jël xaatim bi def sa coffre for loo soxla fekk ko fa soo ko defee sa poos loo soxla fekk ko fa bu dee sa suuf sa jaat loolu secret la bu dee yaayi Moussa rek xànnatu la tudd amoon na ustaat bu ko téye rek yaa xànnatu yaa xànnatu yaa xànnatu rek mu dégg ma def ci émission mu seet si ma ne ma man xànnatu rek laay rëkk ma ne ko déedéet waxuñ la ni yaayi Moussa tur yaay ja déedéet secret bi tudd umu muusaa ma ne ko sànni ko mu ne ma amoo ko ma ne ko su ma ko amoon danaa jaay rab yi ak di jaay galaas ak ndox ku ko yor looy doyee galaas ma ne ko yoruma tus man de Umu Musaa bi ma yor mooy jaay rab yi galaas ak ndox boobu dong laa yor de mais xam na jaaxle ci doomam déglu leen nag histoire bi na rey na soixante-dix mille liir yépp góor la lu muy sobe nguuram kuy joxe nguur kuy aar nguur bakoog yàlla bakoog yàlla sëriñ bamba nee na su la yàlla yëkkatee ba ca kaw tongal la ci garab gu meññi ci neex ne la lekkal nee na bul dem Casamance ak Fuuta di ut ndomb gu la fa téye ke la fa yéegala la mën a téye boo ut ndomb mu lay wàcc ndax yàlla bëggul a bokk ak mbiram kenn yaayi Moussa dégg gàdd yi rek fekk mu ngi ci cin li di togg reer mu jël ko dugal ko ci biir cin la ubaale te cin laa ngay put put bax mu tëmbal ca doom bi parce que moom firaaw na jël doomam rey ko mu baxal ko ko ko gënal benn yoon gàdd yi wër kër gi seet dem seen yoon rek mu jooy ne mukkal suum sa mag de sa bi dee na ñu ubbi cin li gis Moussa jël baaraam bii ci loxo ndeyjoor bi sax ko nekk lim ne ci cin li yépp yàlla jël na meewu weenu yaayam transféré ko ci baaraam bi xale bi di nàmp ci cin luy baxti yóbbu yaa kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahima dugg na ci safara lakkul daa mujj sàngoo mantoom xal ya soppale ko galaas moom la tubaab yi jël trouvé ci congélateur ak frigidaire salaam ci ngay ci sam ndugg bardan ci ngay forme galaas pour mën a jaay comme man man ma jàng ko ti mënuma koo liggéey tubaab moom jël ko defee ci congélateur defar frigidaire jaayaat la ko yow jullit bi ko jàng sa nasax la bardan congélateur wasalaaman muy bii seddal mujj ya frigidaire congélateur ñu boole ko bii di glacé ci kaw bii di seddal ci suuf baa ñu bii glacé bii di seddal bu la ci neex jënd te aaya alxuraan la dal Moussa mooy la dal Ibrahim mu génne ko mu ne man xale bi duma ko yor firaaw na dina ko gis yàlla wax ko ne ko yónnee ci moom nekk na defar benn kees dugal ko ci te sànni ko ci dex gi ma dénk ko dex gi gannaaw dénk naa ko ndeyam ñemewul joxal ma ko ndox mu dem ci menuisier bi mu defaral ko gaal mu defar ca lépp ay njëgënaay yépp ndax bëgg doom bi dem ba ca dex ga ca niilu misra mu ne ko teg ni ko dénk naa la ki la bind di ko xool ba kees ga réer ko mu am ay fan lekkatul naanatul ndax xamul fu doomam mujj nekk mu nga jëm ca loxoy kay rey doom yi muy firaaw na wóolu leen yàlla yéen ñii bàyyi leen seen yii te bàyyi ko kii ka doon wër ku mu rey kookaa ko fekk si nag asiyatu génn protocole bi génne ko ci tefes gi muy ñuy doxantu foofu la ñuy pour féexlu mooy njëkk a génn bu paree firaaw na doo ko génn ñu jiital ko indi teg ko seen kees ga muy tëmb nag di ñëw ut si palais firaaw la baleen yàlla ak lépp Jibril yàlla yo xoolal ba nga juddoo dugg école ku la waxoon am na fu ñuy wax seeraas ku la waxoon ndax am na pal gu nga gii nga yor da nga ko mas a am xamoo ko géntoo ko li des ci sa dund am na lu yàlla denc lu mu la waxagul yàlla mbiram yegg xam la mais du xam yegg imaam noonu la yegg rek xam papa falang papa falang du bi muy waxtaan ak Abdou Diouf fekk mu nekk président daf ko ni bi ngay bëri daf ko ne bi ngay bëri maa ngi ci kaw garab yi di la seetaan ku la fo ku la soppoon la bàyyi falak ne ko booba dee su ma xamoon ne ki ma war a yilif ci réew mi ci garab yi ma dugal la doo paas seetal ki ci garab gi nekk dina yilif kiy bëri nekk kiy bëri ki ko war a yilif a ngi ci kaw garab gi te kenn xamu ci sa ëllëg gi morom ba baleen mbir yéeg yàlla hein nañ ko bàyyi yàlla élection yi passé kan la nit ñi foogoon présidentielle yi Idrissa ba Niass ba Tanor ba maam Ablaye Wade Macky moom bokkuloon ci ci ligne bi kenn programme ko ni yàlla moom la programme nguur nit mënul daaneel nit gëm leen yàlla man su ma mënoon a mën Mansour xam nga ne du ma fal Macky Sall di toog damay fal sama bopp kay ne dégg dem Saalum nag installé defar lépp képp ku la le mën naa laa fal day wax lu ko neex ku la le mën naa laa folli day wax ko la neex lu ko neex kenn rek ko mën muy tuuti mulk man tasha yàlla nee na maay fal ku ma neex wa tanziul mulk mi man tasha maay toog ba mu neex ma ma folli la kenn mënul fal kenn mënul fol li may fal may folli bari na ko naan président mën naa laa fal te mu ngi projet bu muy réglé mën ta réglé te mu ko réglé ca fal nga yeewoo amul rek waaja sëriñ ba def ko ne dama lay def golo ca tool ya mer mu ne ko sëñ bi garab yi ci àll bi ak xob yi ñu mu bëri te li moom nar a defee golo nga def ko xaalis ñu wàcc ñu bi jëlal xob yi soppi ko xaalis moo gën nga may def golo ma yàq tool jàmbur yi rek sëriñ ba ne teqaree ni ko wax nga dëgg de mer rek daay mënuma ko mer dong waaye mënuma ci dara te wax na ko dëgg yow defe nga ne bu ma mënoon a fal man Iran du ma fal sama kër goo fi dem ci këru borom xam-xam yi doom ju jàngi ba ñibbi si bëgg liggéey amu ko mu nga fa gannaaw yaay fale doo fexe moom liggéey yéen yeewu leen ti ngeen téye li ngeen yor téyel ko yàlla bu ngeen fégalee ngeen nangu yàlla moo la ayaloo moo lay fégalloo nit mënu laa fégalloo seetal firaaw na bàyyi gay kees gi ñëw ñu dem jëli ko est-ce xam nga ni Moussa baayam tudd ko ndeyam tudd ko Asiya ko tudd jigéen jabaru firaaw na moo ne indil leen ma kees gële nekk ci diggante garab gi ak ndox mi mu mooy ndox saa mooy garab ñu ne Muusa ñu yenu kees gi indi Asiyatu mu ne ubbi leen ñu ubbi gi fekk Muusa liir bu rafet mu ngi seex baaraam bi di ko macc ñu ne xulaam kii góor la de doom bu góor yëg nañ ne pale bi day rey xulaam ñu ne xulaam amet xulaam boobu la firaaw nay wër moo ko fekk si ci pale bi ñu ne bu firaaw na ñëwee lu muy wax nag Asiya làkk kees yi ngay jigéen lu amul ci jëkkëram ci jikkoom la maa la ko wax jigéen lu mu bëgg ci góor am Serigne bi nee na ñett bu ko jigéen defee jekku jëkkëram wax ju neex xet gu neex lekk gu neex mën suur jigéen na xetam neex na waxam neex na toggam neex jëkkëram toog xam nga ni jibi bu ko bu dee bu wooyee sonn mu ne ko alaaji na nga def ba sonn mas sa coono yi de waaye nag yàlla baax na yàlla yàlla jàppale kon ma bàyyi la ba ci kanam buy coupé rek nga gis mu ne daal leen waar allo serpent ñëw fi directeur bi jaar fi xam na ne jaaroo fa wax jee neex daa bëgg waxaat xanaa xamoo léeg-léeg nga décroché sa nga gis sa téléphone yow góor nga xool muy sa jabar sa fit wi ne rës nga xam ne doo déggulu la neex tey léeg-léeg jigéen xool muy numéro jëkkëram fit wi ne rës ndax jëkkëri dof la yore jabar ju yewul ak góor gu dof gu ñuy séy ger ga rëjëx rëjëx rek dégg naa sax gars def ci ne jamono ji salibataire eh, bu amul jabar yuuram du le xana xamuñ ni ñuy wax nañ ko seeta la ilaha Ni ñi am jabar rek a de réglé man amna xarit mu di fekk ci tayba Ndiaye takk jabar jël kaaru Taïba bi jëm si tayba Ndiaye war a wàcc kaar bi continuer ICS mu duggaat ci kaar bi ñëw ba Taïba Ndiaye di xalaat ba dellu Tiwaawoon wàcc dem këram doog a xam ni fii du Taïba Tiwaawoon la di kaar mu jëlaat oto ñëw fekk ma Tiwaawoon Taïba dama ko wax Maria ba tëdd ma ne ko lii lan la mu ne ma problème yi rek nekk jabar jee ko laaj deux mille francs te amul

wax neex lekk neex ana sa jëkkër mu ngi ci biir su wax naqaree booba léegi ne maa ngi ko noonu la mel nag daa bëri jikko rek gis na ko daa xam ne li mu commencé liggéey su la découragé nga wax ko lu tax mu découragé man am na ñoo xam bu ñu ma ooyee ma jëm contrat du ma leen jël day sonné ba téléphone bi xaar ba beneen nekkaat mais du ma la jël bokkul ci xel soo amee xarit bu nitewul ma di sa xarit la te léeg-léeg mu nettali la loo xam ne yow manoo ca dara te sa xol bi lay tàng damaa dem benn conférence ka doon way ku ñëw wax àllin di la fa gaaruwaale mais lii dóor na ma ko man ma war a dem conférence ci àllin lay conférence protocole da koy tere moo tax am na nit ñoo xam ne bul di jël seen kàddu boo bëggee tëdd sinon doo nelaw alladi yuwaswisu fii suduri minal wa naasee daraaw na xam nga bu di jinne danaa la lëngal ndaw si jox ko loxo woo ko sa néeg jinne boobu la lay dóor bu dee naas nag danaa la gis nga ilimaam eh, jibril entre noonu tëjal buntu inna man najwa mina shaytaan yàlla nee na tëjal buntu tëjal palanteer nee na dawal génn naa te wax jàmm nga tëj buntu tëj palanteer mu ne ah nag man dama laa bëgg gis naa keroog conférence ba <coughs> nga jël enveloppe bi jox imam da koo miinul nag maa la gën a am ko soxor la dafa am xam-xam bu ñuul soo moytul dana la yàq waaye nag bu ko kenn yëpp dama lay dimbali entre nous kii mooy muusiba même bu ko jibi gëmul xelam dana ci liggéey yàlla ne alladi waswisu am na ñu xam dañuy lëndëmal xalaatu ni moo tax kuy wax musiba bu ko jël boo dee wayi soo bëggee tëdd bu ko jël boo yeewoo suba bu ko jël heure yi ngay ne ci dara bu ko laal fenn moo lay noppal bi ko aasee ko dangaa sañ yëpp daf ko bëgg wan xale bi te bëggul mu rey ko tey de dangaa sañ ne waa protocole bi wax leen alaaji say si ñu ne anke mu ne tàccu leen ko ñu tàccu firaaw na mu tiitaru jaayoo xam nga buur day bëri tiitar waaw day bëri tiitar mu tiitaru noonu jayi jayi del ne xamaan ah, joxal ma leen ku ne un million ñu ne tàccu leen te firaaw na dafa yaree de ko bu dee mitin dañuy yéenu tirbine bi mu toog ci kaw wax li mu wax nee na kenn du fi samp ay weñ man ngeen a doone weñ xam nga kii dafa réew ci kaw la naan nongu nit ñee koy yenn mu wax li mu bëgg a wax wàcc dem ñu wàcc tirbine bi ah dañoo ñemee onk wa jaala ahlaha chia alquran la wa jaala ahlaha chia firawna bandi la aasi ne ko mu ne aasi lu ne fii mu ne ko sunu taaw mu ne ko kañ nga ko ëmb mu ne ko bi ma ñëwee toog fii uuf kër gi ubbi ko firaaw na daan naaw ni ko xulaam doom bu góor nguur ga féticheur gis nga yi ngeen rey yëpp suul ko bu yowmal xiyaame yàlla dana leen laaj ruu ngeen delloo ko ci xar yi ngeen suul liir yi ngeen rey nag yi ngeen suul musiba yëpp yowmal xiyaam dangeen ngeen fay ruu moo tax boo dee vrai jullit doo xam lu soxor fi ngay xamee dëgg dëgg ne jullit nga doo xam lu soxor so demé ba am néeg néegu rayal garawul suulal garawul bul julleti bul worati do julit mo ubbi kess gi mu ne ko haman uxtulhu rey ko aasi soppi xar kanam gi da fi raw na dako nop nopp nag te aasi dafa rafet nga njool ca kaw karaw gi ràccu ci mbagg mu ngi tusngalu ba maarate itaali te bët yu rëy day day tusngal da koy gën a rafetal waaye bët yu xóot comme sama yor day tax sa xóotaay gën a feeñ man naa benn waaye bu tusngalu ma ne ko duggal fii sëlmu yaa boolo benn ngeen bu say bët xóotee loolu yeneen bi bu masaa tusngalu bu la xoolee nga lox ndax taar rek ah nga ci kaw karaw gaa ngi ràcc ci mbagg yi mu ne bëri ne ko haamaan lu ci sa yoon yamal fi nga war a yem ne ko firaw ne yow mag yow amuñu doom kon kay léegi xuratu aynin lii wala ka nangami at amuñu doom yàlla indil ñu doom bu góor nañ ko def suñu taw daal di changer complètement firaw ne ne ba gannaaw da ngay mer te jaral na la ko yow jëlal muy sa taaw amma ana merci yow jëlal may naa la muy sa taaw mu ne ko ok te nekke magu Moussa mu ngi liggéey ci palais bi te moo topp kees gi di ko contrôlé ba yëg ne dugg na ci palais mu dem ca yaayam ne ko mu nga ca loxo firaaw la yaay ja xëm mu ne wuy sama ndey yaay lan la topp ko ndox mu jóg mu ne kon firaaw na rey na ko mu ne ko déedéet jabaram moo ko def doom yaay toogal danga ci jotaat ñu ngay wër ku ko nàmpal mënuñu ko am yàlla jël Moussa ku ñëw di nàmpal ka bu la sex boo ko sexalee weeni Moussa dummóoyu ñu dajale pale bi ni ku fi xam ko mën a nàmpal Umu Kalsum ne man am na meer bu ma xam xale bu ñuy nàmpal bu bañee moom bu la joxee weena mu nangu ti yaay Moussa lay wax yàlla ngóog firaaw na gëdd ko poñe ko ne ko xam nga ndeyu kii mu ne ko fu ma koy xamee yéen a laaj man dég-dég laa am ci kooku aay si ne ko bàyyil jàmbur ñun ñuy war koy nàmpal ku xam nañu wax Haamaan yemal ci na di nga génn ki man ak sama njaboot Asiya bàyyi ba mujj ñu yónnee oto ak protocole ñu jëri maire bi mu ñëw mu ngi sol yére yu doy waat ndeysaan yeeg si ñu Asiya ni ko soxna si yaay kaay mu ñëw Firawna nga toog fële tegale tànk moom ba léegi-léeg ne ki lay daaneel moo ne ci yuur gi même waaram maanaam yuuram looloo fay mbalax fi mu mu ñëw yaay ji xannatu jox ko ween bi mu lànk weenu ndeyam la lànk parce tëb nangu baaxul gisoo jigéen lum la bëgg-bëgg su ko maasu ne ko dama bëggoon soxla boo d'accordé da ko naan ah, bàyyil ma xool ba xam fekk moo gënoon a yàkkamte nopp waaye tëb nangu wóorul ndaw si ne ko maa ngi dem bañ na mu ne ko yaay jàppale ñu soxna si génne benn liquide diw ko ci cosu weenam seral Moussa du dara ay naxasaale la Moussa teg ci tuñam affaire bi daal saf suukar mu teg tuñu waaye sexul aasi ne ko dolli diwaat ci mu diwaat ci si seen ko ween mu sex aasi tàccu ko ne firaw na kaay am nañ ko ko nàmpal mu ne ko baax na nga wax mu bëgg rek ñu wutal ko appartement daggal ko salaire yoral ko ki ko war a daaneel eh yéen ñii politiciens gëm leen yàlla yàlla leen fal waxew gëm leen ko mu ne ci pale bi ne ci bi ne pale palais bi ba xolu Firawna xaw wëlbatiku jublu Moussa Moussa dafa mitti dox dox bis nag Firawna uuf ko di foox moom rek mu téye mustaasi mustaasi xam nga daa am yu jaar yi jaar fi mu téye ko comme ngalaab téye ba dëgër na mu xëcc ko Firawna ree mu wundeel rek biif Firawna ñu tuur daa ngalawal ba pale bi yëngu moo aasi ah, bi mu ne ku ne génne dama koy rey mu ne ko noo gone la bu ko rey firaaw na ne ko gone la mu ne ko waaw mu ne ko jël benn xalu safara teg fële bàyyil feer bul jël feer xalu safara teg fële jël këriñ bu te amul safara teg ne ko danaa xool xale laam bi yàlla orienté Moussa mu mar xal bi làmmeñ yu rocceeku looloo taxoon làmmeñam tàq bi ko yàlla yebalee ci firaaw na mu ni ko rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli damaa dotam boo ma jàppalewul mus firaaw na saay-saay daf ma fay reetaan bi mu fa defee ay quelques années mu rey fa nit ñi di ko wóor lu mu daw dem Madiyan te Suhayb def fa dix ans Suhayb bu may ko doomam muy dellu ci yoon wi la ko yàlla yónnee ci Firaaw la seetal Firaaw na di ko wëraat ñaareelu wër ba muy liir pour rey ko mu mucc mu rey fa nit daw yàlla yebalaat ko fa ne ko këram musaloon ba ngay liir moo lay musal bi ne ponkal demal irhab ila Firaaw na innahu taxaw ñu dem waaye déglul alxuraan nag xawlan lëyi naa sooy wax ak moom sóoraaleel ne mas ngaa ne këram mas ngaa lekk teraangaam mas naa fay sa yaay gor du fàtte démb yarul booy wax ak moom ndax démb góor gi jaaji mbay ca kebe meer nee na ma doom booy wër ñàkk ngor demal seeti ko kër fàtte kuy fàtte démb gore woo booy wër ñàkk ngor demal kër fàtte ne ko ñàkk ngor lay seet dana ne la mu nga nee toog xale yi bi ñu ñëwee ñoom mati ànd ak Ahmed ak Cheikh jataay ba dafa neex parce que jataayu fàttaliku démb la ci daara ji kuy fàtte démb rek baadoo ti démb moo dàq tey ndax ca la lépp nekk mu daw yàlla yebal ko nag ne ko boo demee yaral sa kàddu te nga dal Moussa yegg si rek ak kaan bi mu yore ni ko assalaamu ala mani tabal gudd gàtt daal ñëwal ci li baa nga am problème jàmm rek soo bëggee jàmm kaay gëm yàlla soo bëggul jàmm na nga nga wax ma lii kenn du ci commencé wax دغلو الفرعون وخي كلفة لوا ألم نربك فينا وليدا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين سيت تدلو سخرينك تكو سترا نكو فعلت فعلتك التي فعلت يا nga def nga def fi li nga fi def booba xanaa yàlla ji ngay woote nekkuloon ci yow booba yéefér sitir bii sutura Moussa ne wallet ne ko faaltuha idhan wa ana min daalin xam nga ñun dañu am groupe bandi am chef de bandi mooy yow Firawna tolaa tëj pinc ma ñu xare ñuy sëkkatal Moussa na garde yi génn yi nga tey moo waxoon safaan ci mag yi Eh, gaa yi taxaw fii ñoo yóbbu parce que dañ naan leen conférence ba dégg naa yéen la fa commandant yebal Iran di wax la muy wax yéen di leen di futti kon c'est ça firaaw na rek ñu tëba tëb rek wuti Moussa yàlla ne ko alqa sànni leen kaan bi Moussa sànni kaan bi kaan bi soppale ku jaan ju ëpp yaraax xotti fii ba fële seet doo xam fi mu yem côté bi xamoo fu mu yem mu dem ba ca kaw sëpp na nag wuti gaay foofa la firawna amee feebaru sala su mooy di ngalawal bu dul arrêté parce que tëb gi mu tëb bés ci la sidit di ngalaw li jaaree dakk parce que jaan jee tax ci la aas yi gëm aas gëm ñu nëbb seen gëm denc ko ne pat Firawna ne ko nag dinaa la attaqué jël force bi mu am yépp kuhaan yi saxara yi ñépp jibarkat yi mu ooleen ne dama bëgg a dajeeg Moussa benn jibarkat ngi yéen ay million ngeen ñu defanteeg moom ci man ci stade bii num tudd Léopold Sédar Senghor ñooñ fa daje Moussa ne ko yàgg na ci yow la dese benn Moussa contre ay millions yi jibarkat ñu war a defante samedi ci ta yoor yoor ñépp solu sañc dem ci stade parce que firaaw naa woote ku demul mu rey la ti mooy buur bi ti moo yor xaalis Moussa amul kenn Haroun rek la àndal yàlla ne ko takkal sa fit maa ngi sa ginnaaw asma wa ara ak asma maa ngi gis yëpp doxal ñu dem ñu yegg si toog nag stade baa ngi fees nit ñaa ngi jot kaw jëbarkat yi génn takk seen xaaw yi ñu ngi ñu Sénégal yu mën a garaawale gisoo ñi ngeen jël ci seen koñ ñu ubbi néeg ne dañuy ñaanalaate dañ fay teg ay bijj nag ay morso yu xonqal muus duggee ku mu fay fekk daara léegi nag siiru dugg na mooy ñuy rey gone yi téye leen seen doom yi bu ñu waree gisuñ kenn du ñu rey kenn ku ni ne solution baa ngi noon de amul leneen police ak gendarmerie mënuñu aar lépp xëy na président day waxee ni mu toll ci njiitam waaye xam na ne xale yi ci mbedd mii lu ci police ak gendarmerie ma kenn ku ne yaa jur sa doom téye ko sa kër kiy këf bu gisul lu mu këf dana këf jeex na moom nee na bu dee siiru de toj bopp ba bu ko defee du lekk ginaaram mais téye leen seen doom yi loolu mooy dëgg mais xëy sànni sa doom ci mbedd mi muy taxawaalu yow bëggatoo koo téye soo xëy a ci dem leen foy bu ngeen ne dem leen foy de dem leen ñu for leen nga wax dem leen ñu fori leen dem leen ñu fori leen ngay wax téye leen seen doom yi bu dee ci daara yi liñ ciy wax naan xale yi yelwaan solution bi lii rekk la ku joxee ci sa doom ci dëkk ci daara wutal ko fa génn kër joxel ko fa dundam mu féetee fa di jàngi dootu yelwaan li ma wax mat na solution walla matu ko kon Macky Sall jàppal ci bii manoo ci dara ci ñu la bëgg a dugal waaye ku ne gis ngeen doom yi Macky ci mbedd tubaab yi xotti mbedd mi gis ngeen seen doom yi ci tali bi dox ci mbedd mi doomu tubaab wala ko xonq mu ne ji watar watari taati neen ñun ñu rek ñun rek doom kenn du ko jur sànni ko saytu leen xale yi téye seen njaboot yi ci kër yi bon bi nga jël di ko fay na xëy téye xale yi tëj buntu kër gi bu kenn génn waaye xale yi buñ xëyee ñeen ca baleer bi may dem daara Jolof dama ñëw ba ci benn dëkk may laajte ndax daara su ne ma ne benn xale kaay mu ne ma ma ñëw rek départ xam naa damaa teg ci ñi jàpp xale yi daa defe ni kii ñuy rey xale yi ci lañ bokk mu daw ba ma fa asignage ki ma àndul suma xarit la asi ma xoolal li xew rek tax mu daw fi mu ne xale yëpp jot nañ information mais musul leen moo na dee seen xari laadum yi yéen a leen def ci ruq yi kenn du leen gis am xar dong nga dugal ku ci ruq boo xam ne sàcc du fa yegg di ko jox dund bu baax xar xar rek sa doom nga bàyyi ko bërgël ko pour la yi def na turu njiit wax polis jóg leen gendarmerie jóg waaye xam nga ni su noonu leen téelee seen doom yi ngeen xas ko naan président warloon a wax loolu et pourtant looluy solution doom noo koy ëmbee ba pare im bi ko nàmpal ko ci ko tali bi keneen di ko jël ci seen xaalis yi ngeen am ngeen utal ko compte ku ne sa alal utal nga ko compte am nga compte bancaire am sa carte gab téye ko boo soxlaa génne mais sànni woo sa xaalis ci sa kaw lal nga sànni sa doom ci mbedd mi pour la ah est-ce que logique la logique téye leen xale yi ci kër yi bu ñuy jàngi ñu gunge leen bu ñu jàngi ñu jëli jàngiwul toog ci kër gi koy sàcc da ngay gis loo jël su dee daara yi yëlwaan gi nag du ndongoy dongo paa yi yëlwaan ban daara lañ ne maire yëlwaan ci ban daara lañ bokk yéen kay xanaa ñoo leen neexul rek waaye yelwaankat yi bëri nañ ñun ñoo leen neexoo rek nag waaye ñu yelwaan bëri na mais pas yi ci mbedd mi demal buntu grande mosquée vendredi la fay yelwaan xam nga nu mu toll jumaa yi partout yi Sénégal yëpp foo dem ay toni yelwaankat a fa ne te ay paa ak meer la mais bu ngeen ñu ramassé boole leen ci paa yeeg meer yi mooy dëgg te yëlwaani xale moo gën a oyof yëlwaani mag solution bi may joxe ci daara yi nag mooy ku jëlati sa doom yóbbu ko kokki walla nga yóbbu ko jurbel baa nga yóbbu ko tiwaawoon baa nga yóbbu ko tuubaa baa nga yóbbu ko fu la neex fexeel ba uutal ko kër mu am fa ndey am fa baay dundam nga joxe ko ca kër ga muy jàngi di wàcc di dem foofa ñooñ di la ko toppatoon doo ko dajeeg moom mu yelwaat waaye man nga jox ma man li ma yor ci ndongo xaw ma nu mu toll man nag alhamdulilah ñun suñ daara amul yelwaan xale bu yelwaan kenn yelwaan loolu daara yi sëñ Babacar kenn du yelwaan ndax sëñ Babacar a waxoon ne xale yi bu ñu yelwaanee ku ku la bëgg a jot ci manulaa jot ci sa ndongo lay jaar bàyyi leen leen ñu lekk ci daqaar gi du ñu mais ñaata ndongoo fa ne man jox nañ ma xale yoo xam ne kër bañ ma leen tuuree ni mbalit laa nga ji gis seeni ndey te ku ne bi ma ko indee danga nga ma ne gisatuma bàyyam daa daw bokkoog man léegi mu jox ma ko moom it daw bokkoog man nga fa fees fa su duloon këru leer di këru barke fu ma jëm ak ñoom mën naa leen a dundal mais ci këru leer la ñu ñëw këru barke këru barke ku ñëw am ma am man nga faa lekk ñaa xaw ma ñaata taalibe la ndax nañu bari su tëdd jotee nga ñëw ci mbaar mi day fees daal te ku ne booba laa gëj a xam fu sa bàyyi man duma fanaan sama kër de ca da xam na fu may fanaan Cheikh xam na ko ca daara ja laay fanaan ay seng te maa ngi étage yu bëri mais kenn du yor ay xale di leen sori suñu xeexee rayante yawa su ma tëddee lu yëngu ma jox ubbi bunt bi waaye bala maa ubbi damay yër na laajal maag sama sëriñ ba ñuy ramasse mu ne ma bul daw ma ne ko fekk ma daara ja nga naan ma bul daw waaye sëriñ ba damaa toog mu romb maag sama ma ne ko ah oustaz Cheikh Tidiane ngay tëngee jii la dëkk waaw ah, oustaz Cheikh ngay la tudd deewul de tëngee jii la dëkk daaru salaam tëbalee ah, mu naan du daw waaye. sans man ma dem man dajale samay dàll ba jekk ma téye ma toog Oustaz Rom ma bu discours ba naaw ma capté ko def sama poche topp bi ñu egg ma ne ko ana discours mu ne ma defe naa des na ci yoon mais noonu la damay dama leen di saytu parce que ay xale kenn du la ko jox nga baleen fa dem da nekk ak ñoom. ko jooy nga ubbi xool lu muy jooy parce que léeg-léeg moromam war morom ma kon ñun li nu man mooy jàngale mais parents yi ñuy jël ñuy solution bi ci parents yi la ne kenn ku ne bu wuutalee doomam Mansour yoral ko xale mu ko yox ceebam di jox dundam mu fay sangoom soxna Mansour di fóotal ay doomam kii dina yelwaat waaye boo xëppee ñëpp seen daara bi te mënu leen a dundal da leen di bàyyi ñu wuti luñ lekk

dara man ko jubadi mënumaa jëriñu kenn mënu mu ngi nii dara lu jubadi def boo demee Tiwaawan ay théâtre am la seetaan chaque jour li ma neex nag ci théâtre am du ci jouer rôle rôle yambar rôle patron waaye róolu kaay ma boot kaay leen ma boot leen Serigne Cheikh nee xale boo gis muy fo ci ay moromam naan maay mbaam mi kaay leen war di ŋaa nee bu màggee mooy doon mbaamu ay moromam waaye koo gis muy war ay moromam bu màggee mooy doon seen patron te loolu xale bu yaru la xale bu yaru xale bu dal li tax kilifaam yépp ñoo toog fi ñi ñàkk ñu fayda waaye yu itam ñii mat nañ ko kilifa bàyyi seen itti ñëw toogandoog moom ba heure bi ku xam samedi ci un fonctionnaire nga war a xam ne dangaa war a noppalu ñaari fan nga am nga toog fi ba heure bi ka nga toogal jar na ko ci yow am na ñoo xam ne bu doon ñoom la di ay mag di boroomi xam-xam buñ leen ooyee mën nañoo bañ a dem baa buñ demee at de présent la ñuy def dem seen yoon ndax gisuñ fa lu ko jar kon nag jërëjëf Cheikh man nag maa dëkk Tiwaawoon ak moom jaar na ci daara ji maa dëkk Tiwaawoon ak moom te yàlla nee na wala taktumu shahadata boo xamee ci nit lu baax bu ko nëbb boo ko nëbbi naafiq nga wa man yaktumha fa innahu athimul qalba xam lu baax nëbb ko ku bon a koy def ku soxor ñii ngi nii bi mu ñëwee Tiwaawan ma di am ñëpp daf ne ma ñii ñooy samay kilifa waxu ko loolu la wax te bu ñu delloo ci yonent bi mooy seen kilifa ndax mooy sëtu yonent bi waaye def ne lu ma am Dakar ñii la ñii ñooy samay kilifa moo tax ma ànd ak ñoom ñëw lu ñu tëral rek maa ngi seen ginnaaw loolu ko la ko wax sas na la ñoom ñëpp ñu takk seen ndigg xam naa ne ay séeréer lañu te ay bañkat lañu ñoo nekkoon ci daara ji seen sëriñ di suñu sériñ maam Tijaan sama xarit la woon mas nañ ma def lëf ba génnuma ci daara ji jàngale mukk mënatuma teg bët xale yi may jàngal te daara ji ay junni ndongoo fi ne bu ñuy julli cour bi day fees mbedd mi fees kanamu kuur bi fees mënatumaa génn tim leen fu xale yi wàccee rek maam Tijaan ni leen ana Ibrahima ñu ne ko tey de gisuñu ko ba muy ñetti fan mu ne lu xew ñu ne ko génnul jàngale de moo Tijaan Njaay jox ko saafara ñu ne ko jox ko mu sangoo ko daa am lu téye tànkam nekk yër na ko santuma ko ko laajuma ko ko waxuma ko ko ndax xawma lan dama jàpp ne rek dama taayal mu jox ko ko ne ko boo demee ne ko sangoo dañoo téye tànkam ma sangoo ko gontu jàngale ci maam Tijaan Caam ca Passy Serigne Cheikh a ko indi woon pour ñaan muy ñaanal xadara bi ku am ijaaba ñu dalal ko fu ñuy wax boulevard léeg-léeg mu yónne woolu ma maag moom bu toogaan tey leem tànk yi ku yaru loxo yu nooy nit bi ma defee noon mu war a dem Dakar voyager dem rendez-vous mu jaar ci buntu daara ji ne seetal Ibrahima ndax mu ngi fi ñu ñëw ne ma kaay wuyu maam Tijaan man yàllaa ma dimbale ma nekk xaritu mag ñi moo tax ndaw lu ci foon sama caaye alku ndax daa forox caaye mag laa yore waaye nag mag ñi koy caaye mag ngay sol caaye juróom-ñaar fukki at kenn fóotu ko kuñ ko ngalaab nga faatu day xasaw caay jundul fóot maan yi fi ne xam naa ay sit lañu rek ñun kay musiba yëpp danañ ñu ko sànnil man duma wax jàmm ñu gërëm leen sant leen ndax mooy seen liggéey nag parce que xale yi jar nañ jàppale am na ñoo xam dañu ubbi liggéey am na ñoo xam ne ay marsan ambulant la ñuy yor ay jakarta motax tax bëggoon naa président gën leen bàyyi xel bu baax parce que sa ëllëgu réew mu ngi aju ci sa ndawi réew surtout ndaw yu am jom xolal yi ci jakarta yi seen biir yi da nor ndax luñ am duñ ko lek dañ koy jox seeni para xolal marchand ambulant yi xale yi si dañu xif ba nuux caaf sax neeguñu ko jënd suñ foré ñenti témir ko seen papa ak seen yaay ñi ku nangu seen marchandise xam nga ne fa nga jëm du baax dañ leen war a encouragé war leen jàppale dama am fu ma jaar ci benn tali fii ma seen xale yay naaw romb ma ma ne asi ñi lu ñuy daw mu ne dañ leen di ramas bu ñu leen jàppee ma ne ko ah, dem Amérique daw dem Italie ñu dàqale ca mbedd ya nga dem Espagne ñu tëbal la nga ñëw sam réew ñu dàqale kañ ngay ak ma defoon ne nit kuy jaay lu baax jarul dàq nañ leen organiser rek taxawee lii nii taxawee nii moytu oto yi te fiñ leen di dàq foofoo mën a jar parce que embouteillage lay am ñëpp taxaw foofu lañ mën a profiter jaay moom maire yi ñekk puuta yow ñoom xam nga fu ñu koy kal doo daan parce que ralentir bee tax bu oto yi ralentiré ñu profiter xale yi itam ñu ngi koy kal marchand ambulant yi ñu ngi koy kal ci ci ci ci embouteillage bi nañ leen bàyyi ñu jaay. suñu doomi réew lañu suñ jaayoon yàmbaana suñ doon jaay cocaïne nag suñ nekkoon ci baar yi di organiser mooy yàlla nag buñ doon sàcc nag mais fitna lay doon ci réew mi gannaaw ñu ngi kur kurkuri wut ay abiyaas wut ay ceinture wut ay kaas ñii di jaay ndaamaraas ñii di jaay xawma loolu nu mu tudd ne ci mbuus mi weex ah waaw tawfiix ñii di jaay ay clémentine ñiy jaay ay mandare ñii di jaay ay orange sa doomi réew rusuñ ci dara ñu ngi ko gàddu taxaw ñi ngi jógee Saalum ñii dëkk biir dakaar ñi dëkk ci banlieue bi ñii dëkk Tamba ñii jógee Fuuta ñëpp bëgg lu nu dundalee seen waajur ñii dañ leen war a encourager bashiran dañ leen war a encourager waaye yow ñu tëbal la Espagne nga topp mbedd Espagne daw ko ba mu jeex nga dem Amérique ñu tëbal la nga dem France ñu tëbal la nga dem Italie ñu tëbal la nga ñëw Sénégal nga bokk ñu tëbal la kañ ngay taxaw yow dangay tëb rek dañ leen jàppale ñii tey ñett ñii ñii ak seeni morom ay jeune lañu ci lii ñuy yëngutu ci la ñuy terale seen bopp kon ku ne da leen di yàqal wala lii ngay def boo ko defati yaa ngi tukkal àdduna ci boo amee say jigéen ñu jàmbaar am ndaw yu jàmbar dooleel leen leen te jigéen Sénégal jàmbaar lanu man man jinne laa guddi rek lay dox duma noppul heure jinne yi rek dem maa ngi dogee sama koor Touba Touba jubal Sud FM fanaan def émission ba quatre heures du matin sud bu Thiès dix heures de demi laay def émission ba quatre heures du matin ci guddi bu dee suba gi neuf ba midi daara jolof laa jóge fanaan rajo jógee fi jëm si fii te bu ma jógee fi am naa fu ma jëm mais moo gën di wëndeelu di sàcc ak fen baax na man dew ma yàllaay dem waxuma yàllaay wax ndax ñi mu rey waxatuñu ñi mu rey doxatuñu kon kenn doxul yàllaay dox kenn waxul yàllaay wax kenn deful yàllaay def mais li may romb man Iran man ji bi nag danaa la conseiller leen na ko téye bu baax ñaari mbir ñaar jël leen ko ñaar ku ngeen gis mu yor kees ku yor picc jënd leen ko bàyyi ko mu naaw nga yéene sa soxla dootu am problème man loolu sama liggéey la su ngeen di tukki jigéen ñi ngeen di romb ñuy jaay kele mantine jëndal donte soxlawoo ko jënd ko ñu dem noppalu nga sànni ci oto bi doo songuloo daanul ku noppal nit ñi yàlla noppal la ñu seeti hadis ba man kaana fi xaajati haqi kaana laaw fi xaajati du samay wax de yonent bi ko wax te yonent bi la wax dëgg la nee na ki nga fekk muy jaay yow Mansour Sénégal am nañu sonn jigéen ñi kenn màggatu ci nag dañoo sonn màggatuñ de maire yi nga naan ko maire Clémentine yaa ko mag dafa tas dafa gàddu ba màgg ya màgg trois heures topp ma trois heures du matin awal yoon Tiwaawan demal pour wala cinquante quatre heures demal nga xool jigéen boot doomam taxaw ci doo daan bi seetal moomu réew nga romb ak sa 4 x di daw 100 sa yaay mënoon na caa bokk sa jigéen mënoon na caa bokk yàlla musal na ca sa yaay musal ci sa jigéen musal la ci santal yàlla delloo sa alal dimbali ci ñooñu nga jënd kalimanti mbuus 500 daa bëri mbuus 250 ba ca gën a seer 1000 francs yaa ngi ak sa 20000 doo ko ramaat def ko ci oto bi sa aajo faju picc yi ne ci kaaf gi naan paj paj ca ca ca ndax bëgg a libre nga jënd leen ñu naawal ñépp moom seen bopp fi la faju aajo ne de maa leen ko jox jël leen ah bu ngeen bëggee bu ngeen bëggul yéen a xam man de ci yooyu lay dox ah man foofu lay dox de waaye ñëw fi ma ngir yàlla mukk damay seen jigéen ñi jaay ma am lu ma yu jëndee ko jeex na nañ leen dimbali jigéen ñi. lépp lu mu fi suñu demee nañ ko jëfee ne moom mi nag da koo jëfee ba natt su ngeen gisee fi itinéraire fi mu jaar ñëw di jàngale waxu yàlla rek la topp ne naka ngay jàngale ak di digle lu baax nit ñi te sa bopp yow newoo ca loolu mooy digle cangaay te new sangu nee xale nag muy sa doom mbaa ñu jox la ko na nga ko yar yar bu rafet loo ko defal lu baax soo demee ba màggat mu delloo la lu toll noonu su dee nag koy yàq defaroo ko ba mu mel neneen su ëllëgee ne moom dana jooy yow mii ba wuy juróom it di jooy ne yàlla nu ci yàlla musal di dem fatiha salatul fatihi ayatul kursi xul wallaahu ahad ne xul auzu bi rabbil falaq xul auzu bi rabbil naas ñu digal ci aajo yëpp اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلم تنزي ايماننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم انك عفو كريم تهب العفو عفو عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا خفي الالقاب نجنا وأجرنا مما نخافه اللهم ارزقنا في في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وسعة في البطن وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تهيب العفو عفوا ربي رب وارحم وأنت خير الراحمين